Heavyweight.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 cooco yu uti bitim réew li xew ci géeju senegal gi yéeme na doy war ñaari gaal yu doon yóbbu ay migran sénégalais ca bitim réew benn gaal bi rek defoon lu toll ci ñaar téeméeri nit nee nañu moo explosé ñi ci des ne gaal googu explosé wul gaalu marine nationale ko mbëkk laa ilaha illallah ba téeméer juróom fukk mujj cee ñàkk seen bakkan inna lillahi wa inna ilayhi rajiun ñépp di ay doomi réew mi bu bugg ndaw ñi di bu boobu nag uti barça wala barsax yéeme na ma ne fi mu ne mbir mi romb na doy waar laa wax te li ci gën a tiis danger yi ci nekk yépp gone yi xam nañu ko ndax barça wala barsax la ñu wax yegg mbaa dee te boo seetee gone yi seen langage wax yu mel noonu bari na ci ay dund gu déegën <laughs> ma ne jarul jaay sa bakkan nag te it ñaata yoon la média yi wane ñu ci ñàkk seen bakkan géej gi lekk leen ñi jaar ci désert yi ñu jàpp leen def leen ay jaam mbaa ñu des ci désert yi waaye loolu yépp terewul ndaw ñi gën a takku laa wax buubu utali tugal seen bakkan ci géej gi moo tax nag fi mu ne ma ne mbir mi jar naa taxaw seetlu bu baax xoolal ma ndaw ñi malgré risque yi ci nekk yépp terewul ñu dëkkee jël gaal yi ma ne kaw bu neexoon golo du wàcc waaye tamit ndaw ñi est-ce bëgg a tekki jar na tay la sa bakkan jaar ci géej yi mbaa ci désert yi loolu nag moo jara laaj responsabilité yi nag c'est partagé ma ne nguur gi war naa xoolaat boppam càmbar ba taxawalaat ay politique yi tax ndaw ñi mën a toog ci réew mi waaw waaye suñu société tamit war naa xoolaat boppam ndax société boo xam ni kër goo dem ka fa ñàkk daanaka mook mala ya yem dañ koy tuutal di ko doyadal duñ ko boole ci dara baay du xajoog moom nday du xajoog moom rakk du xajoog moom mag du xajoog moom mbokk du xajoog moom dëkkandoo du xajoog moom bis bu nekk mu dëkkee dëkku seen xeebeelu bët yeeg seen xeebeelu làmmeñ yi ñu dëkkee koo doyadal dëkkee koo ciipatoo ko xeelu ma ne fi mu ne réew mi léegi dafa mel ni gaaf gi fi gën a bon ak feebar bi fi gën a bon mooy ñàkk kenn du la supporté bu ñu demee nag ba kër gi kii jaay drogue ak gi nekk ci li yàlla neexul mooy am di indi ci kër gi way jur yi yëkkati ko teg ca kaw ñu gën a am gëdd ci kër gi fuuf ki ñàkk toog te sàmm ngoram ma ne loolu réew mu mu am réew ma feebar na laa wax yàgg naa ko wax ma ne bari nañu jël gaal gi dee ci géej yi te ña leen di dajaka jooy seen kàddoo leen sànni ci géej gi ba ñu dem ñakk seen bakkan ak ñàkk leen a xajoo ak ñàkk a dëkk ñoom waaye nag ndaw ñi dal leen dal leen ndax géej nag du solution moo tax ma ne jàngoro gi dal réew mi moo gën a graw corona la wax caricature yi Charlie Hebdo defoon en 2015 ci sang bu tedd bi di Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam bali xew-xew ñu attaqué Charlie Hebdo ma ne ci atum 2020 bi journal bu bon boobu dañoo reprendre caricature yi teg ko ci kaw liberté d'expression maanaam am nañu sañ sañu yekk yonent bi lu leen neex te dara du leen ci fekk billaay dañ koo xamul bi loolu amee nag jiital France di Emmanuel Macron yokk ci xar mi kawar ne la constitution française liberté de blasphémer am na ci dal di défendre Charlie Hebdo ba tax président Turquie di Recep Tayyip Erdogan ne waaw Emmanuel Macron moom xanaa dafa tàggoo xelam jur coow lu rëy te moo ne France googu boo fa waxee juif yi dara ñu taxé la d'antisémite ne France googu ñu naan réewum liberté la am na ñu fa sañul muuru dugg ci seeni école eskay ma ne France googu ñuy waxee ne war nañ fa yekk yonent bi lu leen neex arrêté nañ fa ay match football ci wàllum homophobie maanaam ay propos yu ñu teg ci kaw borom ñaari tur yi <laughs> gisal ma lii rek ñooñu ñëpp la république française ma ngay seen ak ak seen i yelleef waaye nag ak loolu yëpp France nee nañ yonent bi daal mën nañ koo yekk lu leen neex te dara du leen ci fekk <laughs> ma ne allahuma ahli France moo tax fi mu toll nag julliti àdduna bi yëpp daal di yëngu ne nañu boycotté produit yooyu jóge ca France lay jaay Dakar de loolu tax ba fii Sénégal këru diina yëpp daal di yëngu Touba Tiwaawan Rawdu Rayaaxi ma ne kër diina yëpp a yëngu laa wax ne njiitu France na seetaat doxalinam ONG Jamra tamit desul ginnaaw ndax nee nañu dinañ déposer ab lettre de protestation ca ambassade bu France waaw waaw loolooy dëgg mooy li ma waxoon rek dañ koo xamul Seydina Muhammad bokk nga xam ne mooy teddu ngak adduna yëpp dañ koo xamul waaye ñun fii moom boo ñëwee Sénégal dañ koy célébrer dañuy célébrer Seydina Muhammad tey moom foofu lay yem